asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk tey maa ngi lay jàngal booru ba siggi lan ngay wax wax naa la julli diggante bu ci nekk am na loo fa war a wax boo ne sami allahu liman xamidahu nga teg ca rabbana walakal xamdu xamdan kasiiran tayiban mubaarakan fiihi nga yem foofu baax na ma waxaat ko boo jàppee say loxo say bëti oom boo yëkkatiku da ngay wax sami allahu liman xamidahu nga tegaat ci rabbana walakal xamdu xamdan kasiiran tayiban mubaarakan fiihi kon ndekete julli boo jàppee say loxo sa bëti oom ba siggi di nga taxaw foofu ab diir lu xaw a yàgg ndax lang fay wax moo tax diggante bu ci nekk am na loo fa war a dayaale ak sa boroom wax naa la ko ci waxtaan bi passé loolu mooy tax nga am leer yi nekk ci julli nga xam ne kenn du ko am lu dul ñuy ragal yàlla mooy ña xam dañ koy defee ci anam ba nga xam ne noonu la ko boroom bëggee nga bañ cee yàkkam dara kon boo siggee ci rukkoo da ngay wax sami allahu liman xamida nga waxaat sa bopp de nga waxaat rabbana walakal xamdu xamdan kasiiran tayiban mubaarakan fiihi ngir yàlla yow may déglu jullit nga te ëllëg bëgg nga sa borom gërëm la bul ci tàyyeel dara jëlal sa bic ak sa fooy nga bind ko ba man ko comme ni nga mokkale sa liggéey bi ngay liggéey wallahi boo ko defee di nga am leer julli te bu yàlla nangoo say julli yeneen ki des yëpp suñ borom da la koy baal